te quoi waxtu bi daanaka binda bëgg naa ko laaj leen rek yoon bi naxare woon na loolu yaakaar naa ne war a Afrique dem États-Unis nga nekk ay star eh, like you the face of Senegambia let's say the face of Africa ah naka la woon yoon bi sa jaar-jaar balaa ñoo tëj damay ne métti na méttiwul xam nga ku wóolu sa bopp rek boo déggee ñi naan ajamaat mooy boo déggee ñi naan joolaa da ngay suur fa nga nekk te fonk fi nga nekk boo demee rek dara du la jaaxal man dama jël lépp lu ñëw rek i xaapan yàlla moo ko soo damay xaar yàlla ne ma ban action laa koy soog compétition bi oui métti na fële bu baax mais as binta di représenté ñaari dëkk dam ko jël mu oyof comme sax ma mun a génnee toujours Gambia di génnee Sénégal soo ko man dama ne de no challenge for binta and no woman can challenge me. Ah. dafa <laughs> te fàttewul woon julli bi tamit dellu si waat am na foo na foo wax dellu si waat <laughs> there no women can challenge me in this world thank you gëm sa bopp léegi nag it's <laughs> foofu rek moom ma daaneel <laughs> wax na lépp jeex na tàkk tàkk kon nag ah, jërë ngeen jëf ah, dafa mel ni rek ah, waxtaan bi waroon naa gën a mun a neex waaye xam nga rek. waxtu ñëwee bi xoj na waaw ba pare nag foog ñu yi ki nga xam ne moom mooy suñu gan Binta kontaan ci yow bu baax a baax. maa ngi gën a kontaan seen kii bi xoolal dama fàtte sa pour ne ma suba maa ngi tey maa ngi dem Kaaba Diop sama. Tour Nekwan of Peace Be of Casamance so ma invite ñëpp ñëw leen join ma for the campaign tamit di leen di sant bu baax ci invitation ndaxte short notice mais jéem ngeen ci xaj-xajal produce bu am ma waaw ñu laa ñu laa ñu laa wish the best um, strictly from my heart uh, GRTS yëpp Gambia yëpp Sénégal Gambia Sénégal yëpp Afrique yëpp ñu sa gannaaw incha allah bu ragal dara ñu ngay ñaan di la di la di la fenn thank you so much kontaan naa trop nga seen support moom moo may pose loolu laa soxla ñaan. incha kontaan naa trop ci programme yoon amul ci benn. Mhm. xam naa ne si. balaa ngaa dellu indiwaat waxtaan bi gën a yaatu. jërëjëf jërëjëf Tidiane. Ah, jërëjëf um, Ramatulaay. Ramatulaay. kon nag euh, jërëjëf mbokk yi ba tey ñu fàttali rek euh, suñu programme bi euh, jàmm ngeen fanaan moom ngeen a toppa daanaka ñu ngi ñëw nag si li nga xam ne moom mooy cappaandaw yi programme bi maanaam lu ñu waxtu may jeex si na Ramatulaay. Mm-hmm. waaw Tijaan ñu xanaa ñu dem si xel beneen xel segment bi nga xam ne mooy waxtaan bi ma defoon ak docteur Mbow si Olsa. Ah, docteur moom mu ngi wax loo xam ne lu daw yaram waaye lu métti tamit parce que ol sax mun naa dal ku ne mun naa dal góor mun naa dal jigéen mun naa dal ndaw mun naa dal mag waaye nag tamit ol sa nekkul ne like si biir bi rek la di nekka ol sa mun naa nekka si kaw skin bi mun naa nekka sa biir yaram bi mun naa nekka fu ne si sa yaram bi. kon li ah, dañuy dem seeti docteur. Mm-hmm. Ah, docteur Mbow ak docteur Mbow bi nga xam ne amal nañ ko ci euh, olsa feebar yi nag bari woon nañ time yi weeri koor bi ne especially si pël yi ak joolaa yi ak sarapule yi ñu nga xam ne ñeme ñuñ weeri koor lu si gënoon a ëpp nag time yi weeri koor bi moo nekk ñu daan ñëw si ñun dañu jàmbatal ay biir yu métti biir bu metti bi bari woon na torop lu si ëppa doole si biir yu métti yooyu yëpp nag Eh, condition bu ñuy ooyee gastritis moom la woon bari na ñu nga xam ne dañ dee jaawale affaire yi parce que ku sa biir métti rek ñaare soo ñëwee nga ne dama am olsa olsa soo ko déggee moo nekk góom si biir bi si fu ñam bi dee njëkk a nekk soo lekkee loolooy olsa ñu bari ñu ngi leen a wax ne am nañ olsa fekk na du olsa sa feebar bu nga xam ne la soo ko amee am na ay lu ñuy wax clinical symptoms yu ko dee wane yu demee ni sa biir bi di métti nuroo ni dañ teg safara si sa kaw biir bi muy radiate si sa gannaaw wala nuroo ne dañ la jàmpaaka paaka soo demee kama mu ñuul soo lekkee lu forox wala lu am kaane biir bi nuroo ne riisa lañ ci teg muy topp loolu nag naka lañ ko dee mun a différencier mooy lan only through endoscopie bi parce que soo ñëwee with symptoms yooyu noonu ne biir bay métti dafa tànga su ma lekkee lii su ma biir bi dafa métti loolu yëpp eh, nekkul ne dañoo buur rek nela la da nga am orsa bari na comme nu ma ko waxee si njëlbeen ñu nga xam ne ñu ngi leen a ne orsa lañu amee fekka du orsa dafa am jàngoro yu bari yu nuróo ni orsa te nekkul orsa si misal yaa ngi am lu wah gastritis yaa ngi am duodenitis yaa ngi am esophageal reflux eh, ya ngi am yenen feebar yu nga xam ne ñu ngi si biir bi dañ dee orsa fekk na xaaju ñoo nekk orsa su ko defee boromam lu dee xew dafa nekk di jëfandikoo garab yu nga xam ne actually niidut ko ba pare leetaroon dafa nekk si xelam bi nga xam ne su dara ne kuruj rek mu ne orsa bi jug na fekk na du orsa or sax naka lañ ko dee gën a mën a diagnoser da nga am lu ñuy wax differential diagnosis eh, naka lañ ko dee mën a différencier moo nekk ne suñ la defalee endoscopie bi lu ñuy wax endoscopie cuub bi dugal ko si biir bi nataal ko dinañ mën a gis sa mucosal layer bi mun a xam ndax lii ulcer la ndax gastritis la wala ndax yeneen façon feebar la wala suñ la defalee lu ñuy wax barium meal x-ray boobu noonu tam dinañ ko si mën a xamee loo tax bari na ñu dee ñëw si docteur Mbow ne maa ngi amee olsa ma ree ma ne la naka nga xamee ne yaa ngi amee olsa parce que loolu noonu docteur bi fu mu jaar mu daf yooyu noonu pour mun koo différencier su ko dafut mun naa résolte njuumte gastritis nag moom moom moo si dee ëppa doole su ko defee ñu naan suma xol bi mu ngi lakka xol bi nekkul ne xol bi fu mu nekk ak fu butit yi nekk dafa nuroo ni Banjul ak New York <coughs> looloo tax su sa xol su soo soo amee epigastral pain rek nga ñëw ne maa ngi amee feebari xol wala suma xol bee nekk di lakka loolu waxin la rek <coughs> lu dee xew moo nekk ne under gastritis da ngaa gis ne gas content bi daf dee force lu ñooy wax cardiac sphincter bi bu dee close ubbeekaayi biir bi mu relax su ko defee cóolo gi éeg si kaw su éegee si kaw nag mu ñëw si kaw dënna bi eh, su ma mbokkee suma mbokki faana faana yi naan xol bi dafa lakk fekk na xol bi xol bi moom mu ngi nekk si sa wet bi ci sa ron ñeneen teeli faar bi si ron wen bi foofu la xol bi nekk te métiti xol dafa uuteeg eh, métiti biir buy métti loolu nit ñi war nañ see bàyyi xel torop euh, donc bi nga xamee ne euh, nit ñu baree ni am gastric problems yooyu noonu am na si ñoo xam ne dañoo forcer or lan lan mooy si sa uh, advice. ok soo amee feebari biir lu demee ni ulcer wala lu demee ni gastritis eh, parce que danga am yenn garab yu nga xam ne yooyu ngay bugg di jëfandikoo su fekkee ne si njëlbeen yow gis nga ni soo naanee garab yooyu noonu si bés bu njëkk bi wala ñaareeli fan yi sa oor bi biir bang laa giten luñ la dee advice moo nekk ne ah sëñ bi ñu ndey suñ xelaat moo nekk ne nga bàyyee gum or bi faju ba wér que su fekkee ne yaa ngi amee lu ñooy ooyee ol sa mooy guum bu dee nekk si butit yi nga or dangaa gis ne ñam bi lu ko dee tooga noonu dafa toogaale guum bi te loolu noonu mun naa liitoo condition bu ñooy uh, wa wax perforation nga toog rek biir butit bi na te loolu noonu su fekkee ne xew na eh, nuñ ko mën a solver problème boobu noonu moo nekk rek nañu ñu defal la laparotomie auprès de la pour mun a tëj eh, bona bona boobu noonu ba pare tamit mun naa possible mu cause erosion of the vessels vessels yooyu noonu eh, lifin yi chemical su nekk si biir bi da ngaa gis ne su fekkee ne ñam nekkut foofu noonu dañoo eh, toppa fu deret ji dee jaaree vessels yi te loolu noonu mun naa isi internal bleeding ngaay bleed looloo tax ñuy dee advice borom olsa yi ne buñ dee oor time yi weeri koor parce que suñu ooree ñam du nekk si biir bi ba pare loolu noonu mun naa résolte complications yooyu noonu te loolu noonu boroomam du si jëlee tiyaabo de eh, parce que mu ngi lor boppam ne yàlla waxut kenn ne nga daf li nga xam ne daf laa or daf laa lor donc ba léegi ah, ku am olsa mbaa gastrique lan moo ko dee waral sax in the first place bala bala ma laa laaj question. Well, you see, ëpp doole si ñun fii ñu nekk nii si Africa, moo nekk helicobacter. yu ñoo wax helicobacter? yooyu noonu ñaare eh, bari na luñ dee erode mucosal layer bi foofu mulito mu ulceration o mu eh, gastritis ak itamit eh, su fekkee ne itamit boromam daf dee xelaat torop ne human system bi yëpp yuur ame. su fekkee ne always yaa ngi stress oo di xelaat torop si tamit mun naa lead eh, to gastritis wala mu liitu to su ko borom